jërë ngeen jëf mbokk internet di baaxul seetaan Sénégal web ñu ngi ci station boo Daara Khoudoss gis ngeen ndox mi bari mi nga xam ne tey le 21 bu le 22 boog moom la taw ci Touba oto mënatul dem mënatul dikk digganteem ak jumaa ji muy lu lool ci jumaa ji moo xam ne loo xam ne ay canal mi ngi fi yoo xam ne war na mën a yóbbu ndox mi waaye daal lii lañ fi nemmeeku lu mu tawee ba ngi gis ci biir noonu rek am na tata yoo xam ne dañu bloqué wu ci biir ndox mi mënatuñu dem mënatuñu dikk muy ay jafe-jafe yoo xam ne daal fi mu ne waa Darou Khoudoss ñu ngi koy dund gis ngeen nit ñi noonu fi leen ndox mi toll ñu ngi xuus si biir ndox mi pour euh, jàll ndax ndox mi daal bari na ba egg ci lool jamono ji ñu toll ci ci Touba gis ngeen gis ngeen noonu gis ngeen sareet di fi leen ndox mi toll jamono ji nit ñaa ngi bëgg a dem waaye oto mënatu fi jaar kon ñi nga xam ne ñoo jëm station Darou Khoudoss rek bu ñu mënee tegg beneen yoon ñu tegg ndax li nga xam ne oto mooy oto mënatu fi jaar jamono ji ñu ngeen gis ngeen nit ñaa ngi nii di xuus ci ndox mi ndax taw bu bari boo xam ne gis ngeen fi ndox mi toll taw bu bari boo xam ne tey taw na ko fi ñu wax ak yéen nag ci xolu Touba la ndax ci Daaru Xuddoos la bokk station baa ngi ne ngeen seen gis ngeen tataay yi nga xam ne dañu bloqué wu ci biir ndox mi jamono ji ñu toll daal situation bi nii la demee ci Touba rawatina ndox mi nga xam ne taw na ko tey le 22 juillet daal ndox mi nii la mel ci dëkk